sax léegi ñu ngi wut ay docker di wut. port bi lu toll si ñaari junni. Sénégal Macky Sall gannaaw buñ ko dénkee ci lu toll ci fukki at ak benn muy toppatoo boppam di toppatoo ay njabootam ku feebar ci njabootam mu yóbbu tugal faji am fulla gu toll ne jël ay doomam yóbbu leen tugal ñu jàngi ñu dëkkee nag pasar pasaree alalu réew mi. toll ci fukki at ak benn tey Macky Sall nee na dafa soxla ay docker maanaam ay yenukat ci biir port de Macky Sall bu fekkoon respecté na askanu Sénégal tey day wër ay docker rek yu am doole dafa waroon a njëkkee ci doomam amadu sàll ndax moo gën a suur ci république bi car macha allah lii nag dafay firndeel lajju suñu chef d'état yi lii dafay firndeel ñàkk worma ak ñàkk respect bi nga xam ne suñu président de la république am na ko ci ndaw ñi ñu dénk la ndaw ñi dénk la seen ëllëg nga toog di leen caaxaane di leen fooye ba mu desee la benn at ngir nga génn nguur gi nga naan leen kaay leen ma jël leen ngir ngeen dem yenu ci port bi saaga gunul mën a rëy lii nii new ma ne nag dokeer du liggéey ndax nag ay doomu Sénégal ñu ngi ciy daan seen doole ñu ngi ciy yor seen njaboot waaye réew mu mel ne Sénégal vingt unième siècle ñu dem ba président de la république bi naan kaay leen ci port bi ma yen loo leen lii dafa ruslu te àdduna bi yëpp war nañ ci teg seen bët Sénégal nekk réew moo xam ne am na gaz am na pétrole am na zircon Sénégal nekk réew moo xam ne am na lépp waaye ñi ko jiite dëkkee du ñu saboote dëkkee du ñu salfaañi dëkkee tamit du ñu yàpp Macky Sall na la leer ba leer ne yow ak sa njaboot ak sa doom Amadou Sall bis dina ñëw dingeen ngeen wàcc nguur gi ñu fanaan ak jàmm.